gërëm nañ leen sant leen si ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne si seen i émission Actu Débat Actu Débat tey tamit wàcc si langue politique bi tey nag ñu war dalal ki nga xamante ni moom moo nekk vice euh, moom moo président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar moom moo nekk président Aymérou Gningue nekk également maire de Médina Ndakhar Médina Ndakhar nekk si département bu Tivaouane alors président monsieur le maire maa ngi nuyu. Daouda maa ngi lay fay et puis di nuyu nag internautes yi nga xam ne yëpp dañuy dem Dakaractu hmm. ak fi ngeen ko mën a parce que gis naa ni yéen seen euh, vidéo day jàll fu bëri hmm. maa ngi leen di nuyu te di leen ziar. président wala monsieur le maire euh, ban titre nga bëgg ñu wala ñaari yëpp. alors tey jii moom bu la neexee. Hmm. bu la neexee nga ni ay mbiru yam ci bu la nga ni président groupe la nga ni monsieur le maire. d'accord waaw mais man bi ma gën a saf daal. Hmm. mooy xam naa ni doomu aadama la nekk Sénégalais bëgg Sénégal. Hmm. ci sama biir xol. Hmm. te di ko liggéeyal fu ma toll. d'accord kon Sénégal moo la ñor bu ñu bëggee wax. Sénégal moo ko ñor. d'accord Sénégal moo la ñor président euh, Sénégal nekk ci benn série d'inondation boo xamante ni euh, dal na askanu Sénégal kër yu bëri daanu famille yu bëri nekk ci njaxare alors yéen ñi nga assemblée nationale bo ñoo di déglu mu melni génn euh, alors si seeni réunion bi nga amal si alarba bi ñu génn alors taxawal lu ñuy mission d'information d'information si gestion inondation yi alors euh, président mën nañ xam concrètement mission d'information lan lay oh, euh, d'abord damay métit lu ànd ak Sénégalais yëpp. di métit mhm. lu xew. Mhm. nga xam ne dafa xew Sénégal mais dafa xew ci àdduna. tout waaye dañuy wax ni bu sikkim lakkandoo ku nekk sa bopp ngay fay. Mhm. Euh, Sénégal li fi nekk ci gox yi nga xam dafa am ndox. metti na Sénégalais yëpp ak ah, foo mën a toll. Euh, li nga xam itam xew na am nit ñu ci wàññeeku. ñoo ngi leen di jaale ginnaaw bi leen président de la république jaale euh, di wax ni assemblée nationale euh, dafa def déclaration ci fan yi ñu génn wax ni dina dajale bureau mm-hmm. muy yëgal sénégalais yépp ni bureau bi dajale yu démb bi ñu dajalee jàpp nañu ni dañu war a def benn mission d' information mission d' information mooy dem mm-hmm. seet li nga xamee ni def nañ ko ci wàllu inondation mm-hmm. ci juróom ñetti at ñu génn mhm. parce que bu leen fàtte ni mission boobu président ci boppam moo créé woon en 2012 de commission mission décennale boo xam ne am fukki at mhm. kon mi ngi war a 2022 ci biir diggante bi nag mu am ay taw yu am solo mhm. yoo xamee ni nii di nettali lu tax mu xew dafay yaa dafay jël temps. Mhm. mais ku ne xam nga lan mooy problème mu dérèglement climatique. Mhm. mooy ñun doomu aadama yi bi ñu yàlla wàccee ci suuf. Mhm. jox ñu keew. keew mi ñu war a am lu ñu sàmmonteeg moom mais parfois suñu sàggante tax ñu lu lu ñu neex def. di ci sànni loo xamee ni nii kenn xamul lan la. keew bi wëlbatikuwaat ñëw di fayeeku ci kattanu suñu borom.

wax ni dafa bëgg ñu def ko ci biir li nga xam ne mooy defaraat dëkkuwaay yi. Hmm. mais itam fexe ba fi daal ndox mi daal daar ndox mi bañ a di fàttaal loolu yëpp. Hmm. ñun dañu war a def benn mission boo xam ni dañu mat fukki député ak juróom. Hmm. dem xool ko ak service yi nga xamee ñoo ko xool ko ak décideur politique yi mooy ministre yi nga xamee ni ñoom ñoo yoroon loolu. pour seet liggéey boobu fan lañ ci toll. lan lañ ci def te mu baax. lan lañu def te baaxul. lan lañu war a def ak est-ce que mission bi buñ ko yemale woon deux rek dina doy. wala hmm. dañ ko war a yokk. Hmm. est-ce que dañu war a seetaat beneen alal ñu xayma ko dugal ko ci. loolu yëpp mooy mission d'information. donc c'est un, un ensemble de de réflexion boo xamante ni yéen a ngi koy amal euh, ngir proposer benn rapport jagleel ko ki nga xamante ni moom moo nekk président ci li nga xamante ni jot nañ ko amal ci plan de décennal bi ngay wax. waaw c'est-à-dire que dafa am loo xamee ni nii. bu dee waxtaan rek. Mhm. ci biir bureau la ñuy waxtaanee. lii nga xamee moom la bëgg a def nag mooy dañuy dut baaraam mooy dañuy dem. Mhm. def li ñuy tuddee audition. mooy képp koo xamee ni nii tey amoon nga ci wàllu liggéey boobu. Mhm. ñu togg ak yow la yow lan nga jot a def. képp koo xam ne laale woon nga si affaire nga rek ci ci budget nga xamee ni nii mooy plan décennal bi. bu fekkee ni waa ONAS la bu fekkee ni waa AGETIP la. bu fekkee waa ADM la bu fekkee ni waa fondation droit à la ville la hmm. bu fekkee ministère la ak ku mu mën a doon hmm. ñu toog ak yow waxtaan ak yow nga wax ci liggéey boobu nga xam ne dañ ko xayma woon lan nga ci jot a def lan moo manqué ñun itam ñu dem ci terrain bi hmm. xool liggéey boobu xool fi nga xam ne def nañ ko fa te wax dëgg yàlla ay li yéwén ba ñu ko fa defee yàlla dimbali nañu ba bi ndox mi ñëwee li mu bari bëri foofu taawul foofu tam ñu mhm. seet fi nga xamee ni xañ na foogoon nañ ni xañ nga du taamu mhm. ak ni mu taawee ren loolu yëpp buñ ko xayma mhm. mooy ñu def ay recommandation mooy boo xoolee loolu ba pare ba càmbar danga war a wax nag ni gouvernement bi ah yéen kat def ngeen lii lii baax na waaye nag li gënoon mooy ngeen yokk lii def lii parce que bu boobaa bu ñu ko defee xañ na nit ñi bu ëllëgee jafe alors euh, président mu mu mel ni euh, yéen seen mission parlementaire bi nga xamante ne def ngeen ko da ngeen décevoir population bi parce que ñu ci gën a bëri ñoom liñ doon xaar tey mooy ngeen ubbi benn enquête parlementaire boo xamante ni dina mën a càmbar 750 milliards yi nga xamante ne wax nañ ne euh, def nañ ko. fërët ni xëddër kenn xamul fan la jaar te mu nek alalu askan wi ñu war woon ko leeral d'abord bala ñuy ubbi leneen est-ce que nekku di xawa jaawale en quelque sorte mission yi ngeen waroon def mettre les charrues avant les bœufs si on se permet de le dire. waaw Daouda xam nga dafa bari ñuy wax te li ñuy wax ñaare. Hmm. wax deug yalla dañ ci dul am xam-xam. gis nga mission d'enquête parlementaire. Hmm. so déggee ñu tuddu ko rek. c'est hmm. que dafa am tuuma bu jóg. ba pare sukkandiku ci loo xam ne dafa nekk dëgg. ngay dem di def enquête ba xam. loola fan la dugg ak fan la jaar. mooy waaw mooy mission d' enquête parlementaire mais loo xam ni nii wax dëgg yàlla président dafa def conseil présidentiel. Mm-hmm. taxawal benn plan décennal. ñu xayma ni alal ji ñu ci war a def nekk na ci juróom ñaar téeméeri milliards ak juróom benn fukk. Mm-hmm. nga xam ne dafa am loo xamee ne nii ci budget Sénégal lay jóge am loo xamee ni réew yi ñuy jëflanteel. Mm-hmm. ñoo ñu koy may. am loo xam ne dañ ñu koy lebal. Mm-hmm. waaw xam nga boo xaymaa budget moom xayma la rek. Mm-hmm. léegi nag liggéey ba. ñun li ñu bëgg mooy dem xool ca budget boobu lan lañ ci jot a liggéey lan lañ ci jot a am ci alal d'abord. ak lan lañ ci liggéey. loolu moo am solo. mais xam nga boo toppee gaa yi nga xamee lu ñu dégg rek dañuy jóg daan ne ah dégg nañu am na budget sept cent cinquante milliards mhm. wala soixante milliards quatorze millions de sénégalais lañu kon nag ñu ko diviser ku nekk lekk nañu sa cinquante mille <laughs> loolu mooy waxu ñi nga xame ni mm. vraiment dañuy wax rek te ñoom li ñuy wax xamuñu ci dara mm. dama bëgg ñu jàpp ni mm. assemblée nationale boo fa nekkee nekk député dafay da ngay voté ay budget dafa bokk ci ñun. Mhm. suñu responsabilité ñuy voté ay budget gis nga budget bu ñu voté ci Sénégal. Hmm. bu ñu demee ba budget ba jeex. dafa am lu ñu tuddee loi de réglement mooy budget bi nga voté loon Sénégal est-ce que dañ koy delloo si ci yow. Hmm. pour nga xool ndax nañu ko waxe woon defee nañ ko noonu wala defewuñ ko noonu. xam nga kan mooy ñuy may jumtukaay yooyu. Hmm. Cour des comptes. Cour des comptes Sénégal gépp la fi nekkal. mooy def rapport. pour député yi mën a voté loolu. kon dama jàpp ni. Hmm. boo jëlee année 2012. 2013. 2014. ba bi ngay ñëw 2017. Hmm. nga xamee voté nañu seeni loi de règlement. Hmm. député bu tayelul war nga xam le Sénégal dépense ci walu assainissement. man na fi ma toll. mën naa la wax ni liñ ci dépensé matul 200 milliards. matul 200 milliards. Dedet. Ah kon nak ñiy wax 750 milliards. xañ na budget ba la ñu xam nga xaalis bi nu mu bëree xam nga new lu tuuti tamit milliards moom xam nga budget Sénégal dañuy ñëw ni la xayma ni la mhm. quatre mille cinq cent milliards bu ñu koy voté mais dañuy dem ba exécuter ko ñu gis ni que trois mille cinq cent milliards rek lañ ci def waaw est ce que yow da taxaw rek daal ni comme voté woon nañu quatre mille cinq cent milliards mhm. am na quatre cinq milliards yoo xam ne dem na moo tax nit ñi mhm. il faut ñun tam ñu def effort di leen mais ñoo ko tey. kon da nga jàpp ne ñiy wax ñi ci gën a bëri amuñ information la bon information. non xamuñu. parce que bu fekkee xam nga. Hmm. dëgg-dëgg nu budget di tëddee. Hmm. doo dégg budget rek da di kon nak amoon nañu 750 milliards nañu wax fan lañ ko def dedet da ngay nan hmm. budget ban lan lañ ko exécuté ñaata lañ ci jot mobiliser mobilisé. ak fan lañ ko def bo xamé lolu ba paré nak nga soog wax. parce que man mi lay wax ni la. liñ ci exécuter matul 200 milliards dama ko tek fu leer. d'accord au delà de budget bobu président euh, gestion inondation bi ci Sénégal problème là, hein, parce que. Euh, bëri na ay régime yu fi jaar succédé wu mais chaque année pratiquement day am li nga xamante ni moom moo nekk ay inondation ay nit di ci dee ñaanuñ ko yàlla mais des phénomènes naturels yuy ñëw mais anticiper également gouverner c'est prévoir. waaw xam nga euh, Daouda suñu waxantee dëgg rek. Hmm. te ñu wax ci wàllu dérèglement climatique da ngay gis réew bu ëpp doole fukki yoon. Hmm. ba téeméeri yoon Sénégal. am lu leen jaaxal parce que gis nga dérèglement climatique du taw rek lakk am day yi am. gis nga li xew euh, Floride États-Unis États-Unis sen budget mat na de yon budget Sénégal. ay millions hectares ang fay lak da nga defee neex na li xew Nigeria Sénégal. budget CDAO CDAO le bok Nigeria rek mi ngi

léegi nag naka la ñuy def loolu d'accord naa ñu xalaat ci. Mm-hmm. naka lañuy def ba sénégalais yi ñëpp ñoo xamee ñoo ngi liggéey ci wàllu dëkkuwaay ñu jël suñu matukaay ba nit ñi dootuñu dëkk fu taax. Mm-hmm. d'abord premièrement parce que bëgg kër rek taxul. Mm-hmm. fu nga dëkk fa. naka la ñuy def ba ñi nga xam ne dañ leen di jox ay ay ay terrain. jox leen ay autorisation pour ñu defar ay terrain pour defar ay dëkkuwaay sénégalais yi ñu contrôler leen ba bala ñu leen di jox ay autorisation mu wóor ñu ni foofu ñuy dëkk dina nekk dëkkuwaay yoo xamee ni bu ndox ñëwee du fa taa parce que nekkul ci yoonu ndox naka la ñuy def ba renforcer rigole yi nga xamee ni moom la ñu war a defar te bu ñu ko defaree nit ñi di bañ a jël seen i mbalit di ko fa tuur yow xam nga canal 4 gis nga problème yii xew ci Sénégal mhm. problème même nous, daf interpeller la conscience citoyenne. oui oui oui de ñuy pour nous nekk sa les gis nga sénégalais. Mhm. trop mais parfois bu ont ben ouvrage. Mhm. ñu def ci xam ne directeur on a wax. Mon mais de dafa parce que vous euh, regard sceptique. vous ko vous su ko mais kon nag dafa am mbir moo xamee ni jàngaat la. Mm-hmm. am na nit ñoo xamee ni tey dem nañu dëkk ci foo xamee ni yoonu ndox la parce que dañ ko sëkkoon. Mm-hmm. ñu ñëw dëkk ci ba pare. bu fekkee ni taana nga jooy yanu say loxo d'accord war nañ la dimbali. Mm-hmm. mais yan matukaay la ñu war a def ba loolu ñu mën ko éviter. d'accord lan la war a def itam ba yokk investissement yi. ba nga xamee ni fépp foo xamee ni ndox bu ñëwee war fa nekk ñu mën ko pompe parce que ñaata station de pompage la ñu def. ci cadre programme bii ngay wax muy programme décennal man jàngat naa ci lu ëpp vingt station de pompage yoo xam ne dañ ko defar mu bees. wala hmm. ñu amoon ñu yokk ko. mais régler problème bi mënu ko régler. Hmm. parce que bu fekkee dafa am lu ñëw. Hmm. nga xamee ni bi muy ñëw. mënoo ko waajal. il faut mu bett la. absolument xam nga Sénégal bu ñu nee bu ñu demee tey ba ñu ni Sénégal ci Ndakaaru Njaay gi

moom mooy xëy na lii am mu déclenché plan Orsec daal ni jël naa juróomi juróom-ñaari milliards. Mhm. nañu gaaw génne nit ñi manque ndox yi. Mhm. yóbbu ko foo xamee ni nit ñi au moins. dinañ mën a dox dinañu mën a dox yi seen soxla. jël naa ñetti milliards maa ngi koy dimbale nit ñi parce que am na ko bëggoon liggéey liggéeyi mënatul liggéey. Mhm. am na ko bëgg a déplacé mënatul déplacé. am na koo xamee dafa dencoon ceebam ci magasin ndox mi ñëw yóbbu ko ak diwlinam Je ne pas pour plan Orsec ils sont allés très vite en besoin. non décrété surtout il paraît que mom dafa am problème avec Khalis. buñu sommes ni rek mu est ce que sénégalais tamit yenn rek ah. mais est ce que duñu le président ñu réfléchir sur ay stratégie évaluer li nga xamante ni moom moo fi nekk yàqu-yàqu yi ba pare soog a génnee xaalis ñu bañ a jiital xaalis. non dafa am ñaari ay ñaari mbir. Hmm. xam nga soo déggee ñuy wax plan décennal mooy plan stratégique. boo xam ne da nga naan damay fexe ba lii dootul am. Hmm. moom la ñuy def d'ailleurs suñu mission d'information loolu beneen wàll la mais nit ki nga xam ne dafa nekk ci coono da nga koy génne ci coono bi ba pare xam nga plan Orsec lan moo ko indi. Hmm. organisation de secours. mooy am na nit koo xam ne tey jaaxle. daar daar. Daouda man fi may wax ak yow man mii. Hmm. sama yaay fanaanul ci lalam sept jour a ngi nii. xam nga moo tax mbir mi amul ku muy ciblé ak ku mu so sama yaay bi ma jur mi ngi dëkk unité douse Parcelles Assainies. foofu moom foofu la gën a wulee ñaay <laughs> depuis 10 jours fanaanul ci lalam. parce que ni kër gi néegam bi mu nekk ak kër gi mu nekk dafa am ndox kon yëf fi amul xaj amul seen. ñëpp la laal ñëpp la laal. man sama yaay bi ma jur laa wax kon nag gis nga li ma lay bëgg a xamal. mooy mbir mii xew. Hmm. bu fekkee dafa xew nekk coono ci doomu adama yi. ñii wàññeeku ñii amuñu fu ñu tëdd mais yow tam kooku kay boo koy wallu. Hmm. waaye da jéem a génne ndox moomu boo koy wallu. parce que mënatul a dem parce que menuisier la mais mënatul a génn këram parce que mënul dem këram bàyyi ko. pour bu euh, wuti ñetti junni yoo xamee moom lay jëndee saako ceeb. mais boo ko dimbalee ci loolu alhamdulilah rabbil alamin mi ngi mel ni ci force Covid bi bi nga tëjee nit ñi. il fallait nga jàppale leen pour ñu am lu ñu dundee. loolu président def. moom la kilifa di def. mooy su sa njaboot nekkee ci njàqare. génn leen d'abord ci njàqare ji ñu nekk. mais nag xalaatal pour ëllëg naka ngay def. ba lii bañ ñoo dal xalaat boobu nag hmm. ku ko bëgg a tëgg ci fukki at hmm. sax xamuloo lan mooy mbir mi dafa nekk liggéey boo xam ne liggéey bu sore la dafa nekk alal joo xam ne tey jii boo jëloon Sénégal jox leen dix mille milliards hmm. ci suñu xaalis du tax lii génn d'accord li mu laaj moo bari opposition moom jàpp nañ ne Macky day politiser affaire bi génnee jéem a jënd Sénégal yi loolu tamit rafet na président contexte bi ñu nekk nit ñi sonn ngay génnee xaalis di leen di ko xooy waaw mais xam nga nag euh, Daouda yoo tam yow xam nga Sénégal nu muy doxee xam nga Sénégal euh, lépp loo def rek nit am lu mu ci wax waaye wax dëgg yàlla man li ma jàpp te jàpp naa ne ñi nga xamee ni xam nga man ñan laa condamné hmm. mooy ki nga xamee day ñëw dama ko doon wax sax parce que xam nga député

mooy fexe ba jafe-jafe yi nit ñi nekk. Mhm. moom mu taxaw pour génne leen ci. waaye dem nag di photo ak nit ñi rek. Mhm. ak di dox. Mhm. te yow doo indi benn saafara. waaye loolu tam lan la loolu nag mooy politique ñun nag li li président def mooy man maay jiitu senegal man lañu tànn teg ma ci bopp réew mi. réew mi am na jafe-jafe. maanaam ñi de mënuma leen delloo seen ruu loolu li ma mën mooy jaale leen wax leen mas. mais ñi nga xam ni wax dëgg yàlla dañ nekk ci jafe-jafe naa taxaw ba jafe-jafe yooyu ma génn leen ci après nag ñun ñëpp ñu bokk xalaat naka la ñuy def ba bu ëllëgee lii bañ ñoo dal. président man bu ma déggee ngay wax dafa mel ni bokkoo gis-gis ñu jàpp ne lii xew tey si réew mi Euh, nguur bi fi nek lajj bu mu lajj moñu ko yobé ah non non non. ah oui non jàppoo loolu. ah mo mënul nek lolu ah, ah. ah nak la meuna nek non bu fekkone ni lolu la kay. Hmm. kon mbir mi du xew France du xew nigeria du xew États-Unis bu fekkone ni problème mu moyen rek la ak xaalis. Hmm. déedéet dafa am lo xamé ni c'est très important sénégalais xam ko d'abord dafa am ñaari yef yu dal Sénégal Sénégal dafa am loolu ñuy tuddee réewu tax so xolé ci borom xam-xam yi ñoo xayma wax ko dañu ne 2025 ben sénégalais ñaari sénégalais yo gis ben bi ci réewu tax lay nek mais ñu wëlbati ko wax ne so jëlé digënté Dakar Mbour ak Thiès téeméeri sénégalais yu dëkk ci réewu tax juroom ben fukki ak juroom ben fofu lañ dëkk donc une urbanisation bo xamé ni dafa indi lu ñu tuddee la bidonvillisation mhm. de nos de nos de nos de nos villes bidonvillisation boobu nag mhm. dafa tax nit ñi am nu ñu dëkkee noo xamee ni kenn xamul noo koy defee gis mhm. nga ci budget bi nga xam ne le président doon xayma ci plan décennal bi est-ce que xam nga quatre cent quatre-vingts milliards ci budget boobu dafa waroon dem ci restructuration mooy ñoo xam ne dañu nekkoon fenn ñu war a leen fa pour yóbbu leen feneen. Ah am na solution yoo xam ne kenn mënu ko am feek toxalu ñooñu. yëkëti leen fenn yóbbu leen fenn mais loolu tam responsabilité état la hein, président. non non non parce que état mooy signé document yi ñoom ñooy autorisé nit ñi ñu dëkk. waaway am na ci am na ci loo xam ni ñoo ko autorisé am na loo xam ne xam nga ko. Mhm. ay quartier loo yoo xam ni c' était non planifié. Mhm. dañu ko def ba pare ñëwaat di ko restructurer. absolument waaw yow loolu xam nga ko xam nga ku nekk Sénégal xam nga ne. Mhm. am na quartier yoo xam nit ñi dañuy dëkk ba pare ñu ne kenn du leen yëkkati. nañu fa ñëw. Certes, nous la défaré, restructurer quartier pour défaire. leen. parce que loolu ci plan yi nga xamee ni plan de bi Il ci ay quartiers qui ne Sénégal est c'est-à-dire que bu nous ni nit gens dañuy faire àll ba. Mm-hmm. di ñëw te defuñu politique boo xamee ni nii te loolu moom moi objectif du président de la république mooy faire ba ñu def ay territoire yo xam viable économiquement. Mhm. ba nit ki dootul le jóge Fuuta wala mu jóge Kajoor ga ma nekk wala mu jóge Siin. Mhm. wala mu jóge Bawol au Dakar parce que fa mu dëkk. am na fa activité bu koy mën permettre mu gagner fa adunam mhm. dëkk fa nek, fa mais bu que lépp dañ ko concentré ci triangle bi ma lay wax ñu le triangle de prospérité diggante Dakar ak Thiès ak Mbour. Mm-hmm. dina jafe lool ñu génn ci jafe-jafe yi nag. président noo gisee taxawaay opposition bi ci situation bi ñu nekk mbënd mi. waaw xam nga dafa am ñaari opposition. dafa am opposition boo xamee ni yaakaar naa ni euh, ci li nga xamee ni moom la ñuy def ci mission wu assemblée nationale. Mm-hmm. juboo nañu pour ànd ak ñun pour ñu dem xool waxtaan. Mm-hmm. bu ñu demee waxtaan def ay recommandations gouvernement bi. ba rencontrer ministres rencontrer directeur général, yi waxtaan ak xam def diagnostic ba pare def tam ay propositions. kooku c'est une opposition républicaine qui travaille. Amna na ñoo xamee ni dañuy ñëw fekk nit ak naqaram. ñu ñëw bapam ci kaw pour wane Sen bopp loolu japonani, jàpp naa ni képp def euh, sénégalais yi ko xam. te dina am bëccëg ñu fay la loolu. parce que lu tax. nit su nekkee ci jaxle da ngay war a seet lu koy génn ci jaxle waaye dooy ñëw xam nga man kenn mësuma gis ma photo ci ndox mi. te nee naa la suma yaa ngi ci biir ndox mi. kon kay man def ay acte social. mais bien entendu parce que nit boo nekkee ci àdduna. di def di dimbali say mbokk. di dimbale say dëkkandoo mais bis bu nekk yaa ngi ci loolu kon lii am solo. moy non seulement yow en tant que député en tant que nit en tant que sénégalais war nga ko def mais état bi tam jël na ay matukayam pour ne ni lan lay wara def pour mën leen jappalé naka lay mën def pour génn leen ci ndox mi naka lay mën def pour dimbal leen ci dund bi. d'accord du politique. mais opposition dafa wara opposer mais c'est normal mais dafa am yo xamé ni bu amé muy les les les situations de catastrophe naturelle. Hmm. catastrophe naturelle. lo xamé ni yow defoo ko. yàlla moo wàcc tawam ba pare bu tawee ba suuf si naan ba pare ndox mi sax day balle ci suuf am na foo xam ne da manq mm-hmm. ba pare ndox mi di ballewaat ci suuf parce que napp bi dafa fees wax dëgg yàlla bu fekkee sénégalais nga waaye nga naqar lu seet yow lan nga mën nit même su mënul ci dooleem mm-hmm. mën na ci xalaatam mën na itam ci waxam bu rafet pour que ju seet parce que Sénégal nag luñ fi mën a wax mm-hmm. li tax man may am yaakaar ci réew mi mooy jàpp naa ni ñi ëpp ci Sénégalais yi bu jafe-jafe abee ñu nangu toog waxtaan te loolu dafa nekk lu am solo parce que réew yëpp am ko d'accord yaa ngi wax am na am na opposition xeetu opposition boo xam ne day ànd ak nguur gi bu ñu jëlee décision mu gunge leen ci ñu xool nan la ñuy génnee Sénégalais est-ce que newut kon xeetu opposition boobu la ñuy wax opposition bii diil ak chef de l'État dem sax ba nar a bokk ci gouvernement bi nga xamante ni ñoo ngi ko war a installer mu nekk gouvernement élargi ah yow xam nga nag yow Daouda li ngay xam man du ma ko xam. Ah. parce que yéen da ngeen yéen fu nekk ngeen di dugg dangeen di xam loo xamee ñun mën nañu nekk ay politique nekk ci suñu assemblée te yéen li ngeen di xam sax duñ ko xam xam nga man li ma xam. Hmm. mooy président de la république fal nañ ko à près de 60 pour cent 58 virgule quelque mu génn tàll loxoom ni dama bëgg ñu waxtaane Sénégal mooy hmm. dialogue boo xamee dialogue inclusif la du wàllu politique rek. wàllu social lu économie lu nekk. Hmm. ñu def ay kuréel ñu tànn kenn jiital ko pour mu yore dialogue boobu sénégalais yi nangu ko dem toog di waxtaan ak moom bien que nangu nañ ko am na ñu bañ. ni ñoom du ñu dem ci dialogue bi. dañoo hmm. jàpp ne politique la. waa dañu leen bëgg a nax. nax nañ leen ba jël élection yow itam daw xam nga yow boo may laaj. Hmm. nax nañ leen ba jël élection xam nga élection moom. Sénégal kenn mënatu ko luubal. Sénégal mom élection. Hmm. yow journaliste nga da ngay dem ci bureau de vote bi buñu afficher ces résultats yi da ngay taxaw kenen noonu kenen noonu mat ngeen junniy confrères yo xamé ku ci nek yaangi ci bureau de vote xol lan lañu afficher Sénégal mom naxe fi ay élection amatul xam nga lan mo am. Hmm. ñiñ moy ñu gañal da nga génn woy mais jarul ci yoon mais loolu c'est normal parce que loolu xaxar la ku ñu gañe ku nek bo génnee di nga woy woy mais jarul ci yoon mais bo demee ba ci bir hmm. ba teud salal ba giif hmm. da xam ni rek nag wax dëgg yàlla à la régulière dañ duma te nag ku ñu gagné nag nga nangu rek dañ la gagné. d'accord mbokk yi seetaan na émission bii di Actu Débat tey ñoo ngi dalal ay Aymérou Gningue nekk président groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar nekk également maire bu Médina Ndaxaar alors monsieur le maire foog ñu xuus ah commencé nañ politique bi mais foog ñu xuus gën a waxaat si politique bi loi bii di parrainage yéen a ko voté woon défendre ko ci assemblée nationale taxaw bëccëg ndar kem wàccee ay forces de l'ordre place Soweto taxaw di défendre loi bi nan loi bu bax la parce que day filtrer day tax candidat yi ñu mëna dem ci élection yu jaar yoon ngeen xëyaat élection yi jall ngeen gagner ak seeni pourcentage tok ci nguur gi nommé seeni ministre ak seeni député xey suba ne eh, eh, loi bi dañ koy supprimer Daouda buñu togn tooñ waaye nommé wu ñu benn. Ah, député député bu nek dañ la fal. wa mais am ngeen seen député ay ministre la. waaw mais am ngeen seen député wa defal nak mo moom. waaw am ngeen majorité bi. tay tay ba tay ba tay may wax ak am ngeen majorité bi quand même. assemblée nationale ba tay may wax ak yow ba tay may wax ak yow. dama japp ni la loi sur le parrainage est une excellente loi. ah oui moy loi bi meuna permettre Sénégal. Hmm. ñuy meuna fal président de la République. moy hmm. loi bi meuna tax ñuy fal ay député. mooy loi bi war a mën a tax ñu fal ay maire ci anam bu rafet. mais defal defal ndànk ma wax la. defal ndànk ma wax la Daouda. defal ndànk. xam nga loi ba lañ koy supprimer dañ koy abrogé kenn abrogé wul benn loi abrogation loi amagu fi xam nga lu tax mu loolu am solo. Mhm. Sénégal mooy dëkk boo xamee ni. Mhm. su ñu nee tey dañu def élection présidentielle boo ni woon euh, nu mu tëdd bi euh, li ngay joxe garantie. Mhm. cent million la. di nga am junniy candidat junniy candidat kenn mënu leen organiser élection ñun ñoo fi demoon ay élection législative mu am 47 listes. 47 listes. yoo xamee ni ni dañu mujj conseil constitutionnel wax ni. boo ñëwee bul tànn 40 47 bulletins jëlal juróomi bulletin rek parce que boo jëlee juróomi bulletin doy na pour nga ñu assurer secret vote bi. absolument mais loolu yëpp. Hmm. ay cas pratique la. kon élection euh, euh, loi sur le parrainage dafa nek loi boo loi am solo la bu baax la mais nak xam nga ñun lu wax. Hmm. dañu dem dialogue politique ñom ñu né dañu élection locale yi. Hmm. ñu loi sur le parrainage parce que comme qui votait mairie, hmm. dëkk bu mu dëkk xam nañ ko fa. keneen koy ñëw di ko contre ci dëkk ba la dëkk. ko suspendre ñun nangul leen mais ça ne veut pas dire. que dañu dindi la loi sur le parrainage. mais dañ ko suspendre rien que ci élection locale. oui dañu jubóo la consensus la. est-ce que loolu stratégie yi ngeen di teg yéen tamit pour gën a gagner mairie yi. déedéet parce que jàpp nañ ne fu mu nekk nii moom yéen bu ñu demoon suba élection dañ leen di dóor loolu la ñëpp di waxtaanee. Eh, eh, xam nga nag. xam nga nag dem ci làmb ji di bàkku bàyyi ba jógee ci làmb ji di bàkku moo ko gën a wóor. <laughs> xam nga yow boo seetloo 2017 bi ñuy dem élection législative. Hmm. man dégguma benn rajo bu Macky Sall dañ koy yobbu dañ koy di cohabitation parce que dañ koy minoriser du am du am majorité à l'Assemblée nationale ñu def élection législative. Mm. xam nga ñaata député la ñu am suñu majorité. 132 sur 165. Nous dem élection présidentielle bu fekkone ni rajo yi rek la ak seen réseau yi. Mm. Macky du gis biti. ah inondation yi population yi sonn nañ ci defal rek. Mm. ñu dem élection. Macky Sall am 58 pour ba fi may wax ak yow. bu ñu doon def élection présidentielle suba. ma Macky am 60 pour nga yaakaar rek président. waaw ma xam nga man nag. xam nga ceeb bi seddale nañ ko fii gars yi mer non non non non bul wax affaire yu ceeb yow yi ceeb xam nga sénégalais yi passé nañu loolu. xam nga sénégalais yi mooy réew moo xamee ni képp ku ci deful attention dinañ la di eh, boo moytuwul dinañ la bett bett mu am solo. parce que sénégalais yi d'abord dañu ñor xam bu baax fi ñu jëm. Mm-hmm. yàlla defal leen itam. léegi dañ ci boole noppi dañ lay déglu ngay wax di bonde ñu naan la wéy am ñu fukki nit rek di la jay fekk junni nit ñi ngi toog ñoom di xaar rek naan ba bis ba loolu olof di wax naan wuré wi dem na këng waxi mag dem na ndañ yi loolu mooy am ndañ yi mooy bu ñu demee ba ñu ni suba la nag ñu toog nii xam nga lu xew fii daal gisuñu fi kenn ku dul mag mi ndax bu dul moom ñi ci des wóoluwuñu leen noonu lañ koy fale loolu la ñuy ku nekk C'est mo xew ci gox xani moy xew ci élection législative moy xew ci élection présidentielle nit du loxom fu mu nit du loxom kumu kon yeen ngeen seen que fu non ak problème yi am yépp le dëkk bi nit ñu nekk est ay mais wóolu ngeen que ni bu ñu élection di président. yakar nga waaw xam nga lutax mom hmm. euh, du ci doom adam hmm. te itam nit su ni dafay nangu ni nakku nattu dal na ko mooy li xew nii ci wàllu ndox mi mais ku ne xam ni taxawaay bi président war a taxaw taxaw na ko taxaw na ko ci xeexu euh, jàngoro bi. Hmm. gis ngeen Sénégal kañ la ñu gëj a coow ci jàngoro bi. keroog ba keroog keroog ba ba ci àdduna wërngal këpp ci biir ONU. Hmm. nga xamee mat nañu cent quatre-vingt-dix états. Hmm. ñu xëy di Sénégal. C'est gën ça bi la classé deuxième. nga dégg kenn waxatu ci. wax est que gars souvent vous vous êtes au premier rang yéen nekk premier. mais en réalité vous vous êtes sur le terrain amna benen réalité bu muy refléter président. wa mais lu ñi ñu nax est ce que dañu neexal wa pour ñu nax ñu. ñun ak ak ñun taluñu hmm. ñun dañu rek def suñu

gis nga Covid bi mu ñëwee. Hmm. daf ko def un problème de sécurité nationale taxaw xam nga affaire politique gu Covid bi du politique ministère président moo ko jëlal boppam. affaire de nation moo ko jëlal boppam rencontré ku mu war a rencontre jël plan bi def plan de riposte bi ni dama ciy def un milliard seet li nga xam ne moom la war a jàppale ministère yi nga xam ne dañu war a liggéey ci liggéey. boo gisee ndam bi mu am ko foofu la jóge c'est-à-dire que mbir bu ñëw. Hmm. di dal ci sa réew. que jiite réew ma def ko problème national. Hmm. def ko un problème de sécurité national xam bu baax danger yi ci nekk ak ni mu war a def pour aar ko il faut yàlla defal ko ci ndam. jàpp nañ ne ñëpp doon seetaan sax yàlla defal jàpp nañ ne tâtonnement lañ ko gérer tâtonnement la jël nañ ay mesures bàyyi jëlaat ay mesures bàyyi ba ba ba dëmb rek nee nañ encore jëlaat nañ yeneen mesures fu mu nekk nii dañuy dañuy yolomal. yolomal mesures yi ñu jëloon si wàllum transport bi. war nañ yolomal fu ñu nekk nii. xam nga euh, Daouda. comme dañuy waxtaan ak sénégalais yi. Hmm. li ma la wax léegi ci président li mu jël loolu def ko un problème de sécurité nationale. gis nga nag lu xew jamono bu xew ak mbas mu xew. Hmm. wala musiba bu xew da ngay adapté mbir mi ak li nga xamee mooy sa koom-koom. damay wax toujours ni. Hmm. ni nit amee ruux noonu la économie amee ruux. noonu la social tam amee ruux am na koo xamee ni soo ko teree dem seeti bàjjanam. weer day feebar kon may ko moom itam mu dem seeti bàjjanam parce que xañ na loolu bokk na ci li koy dundal. am na koo xame ni soo ko tee dem seeti sëriñam dafay feebar. parce que ruwam sëriñam da dafa bokk ci li koy dundal. Mhm. kon may ko mu dem am na koo xam ne soo ko tee xëy dem Dakar danga koy rey boo ko doon may dix mille francs itam. Hmm. dem dakaar bi ci boppam dem taaba taaba ji. Hmm. dafa am lu mu koy gënal. d'accord loolu yëpp dafay dund. moo tax gis nga feebar noo ko gérer gérer gérer da nga koy adapté ak contexte bi nga nekkal. loolu moo tax ci biir gestion feebar bi mu am jamono ñu yolomal mu am jamono mu yéeg ñu ne déet nañu yokk gis nga boo xoolee réew yenn yeneen yëpp xoolal tey réewu Europe yi xam nga dañu yolomaloon. Hmm. ñoom ñëpp léegi ñu ngi dëgëral. loolu nag taxul ma wax ne nañu bàyyi suñu loxo déedéet. Hmm. nañu continuer. war nañ gën mesure barrière yi dëgëral taxawaay bi dañu sol masque yi. parce que dañ ko war a jeexal si réew mi. na waaw nañ ko soril xam nga lu koy jeexal. Hmm. ñun mënuñu ko jeexal. li koy jeexal mooy ñàkk bi feebar bu amul ñakk amul garab li ñu la wax ni moo la ciy dimbale. Hmm. mooy li ñu wax ñoom fexeel ba ñuy set. fexe dañuy sore dañuy takk masque mais loolu xam nga lan lay wone mooy pour que propagation bi. mooy ni mu war a lawee ci doomu aadama yi. mu wàññeeku. mais faju ko. d'accord mais lu koy faj dëgg-dëgg. mooy ñu dem ba am garab wala mu am ñàkk bu koy aar. d'accord waaye nag fii ñu toll. Hmm. ñun ñëpp nañu nangu ni wax dëgg yàlla nag ci wàllu Covid président taxawaayam yàlla dimbali na ko mu matale ko matale boo xamee ni wax dëgg yàlla ah adduna yëpp. ñoo ngi koy kañ ñoo ngi koy woy ci wàllu woowu. président maa ngi jéem a dugg si politique bi yaa ngi may génnee di ma dugal si Covid bi mais man damay delluwaat toujours parce que il faut que ñu waxtaanee politique bi ah jamono bi ñu nekk yaakaar nga réewum Sénégal soxla nañ gouvernement élargi fi ñu toll. waaw xam nga man Daouda li ma lay tontu foofu. Hmm. mooy li ma la waxoon ci njëlbeen xam nga président moo gagné élection. Hmm. su ko neexoon dafay toog rek daal ni man gagné na 2024 laa jëm. damay def lu ma mais bëgg-bëgg bu mu am ci réew hmm. ak gis tam parce que am na am na loo xam ne su ma koy waxtaanee yow du ma bëgg tudd ay réew. Hmm. mais bari na réew yoo xam ne dañu suux xam nga lan moo leen suuxal. Hmm. ñàkk waxtaan. seetal rek li ma la wax fii waaw moo moo indi yenn yi. du ma tudd nag ay réew. mais Sénégal dama ne dafa am lu fi yàlla def loo xam ni wax dëgg yàlla lu mu metti métti métti lu ñu tamante tamante. bu waxtaan jotee ñu waxtaan. keroog bi président tàllee la loxo gars yi dañuy ñëw waxtaan ak moom. am na ñu bañ de. waaw am na ñu bañ mais ñu ñëw duñu waxtaan ak yow parce que dañ ñuy nax. waaw waaw waaw mhm. mais attends. xam nga xam nga boo boo fi jógee nga peese. Hmm. ñi nangu ak ñi bañ après di nga ma wax. xam nga moom mbooloo ñaari mbooloo moo dafa am mbooloo yo xam dañ leen di wàññ. am mbooloo yoo xam dañ hmm. leen di peese. am yoo xam ne nga leen a boole wàññ ak peese. boo fi jógee nga wax ma. d'accord ñooñu dañoo la dis li am solo dal, hmm. te mu wax la ko mooy nag dialogue boo gis ak waxtaan boo gis war na am lu mu jur. man jàpp naa ni ku ku nekkul woon ci buntu yaatal doo waxtaan. kon jàpp naa ni président nekkuma ci xelam. Mm-hmm. mais jàpp naa ni su wootee waxtaan ñu waxtaanee réew mi. waxtaanee ko ci ponk politique waxtaanee ko ci wàllu syndicat waxtaanee ko ci wàllu économie waxtaanee ko ci wàllu euh, euh, caada gi. Mm. mais dafa am lu mu war a jur li mu war a jur. mooy ñooñu ma àndaloon waxtaan naka lay fexe ba ànd ak ñoom liñ tënk ñu ànd doxal ko. d'accord man je crois que kooku mooy li nga xamee ni. Hmm. loolu foofu la war a jeexital. bu fekkee ni kay jeexitalul foofu. Hmm. kon lu waxtaan di jariñ. d'accord waxtaan boobu moo indi ngeen agité waat question statut chef de l'opposition dem sax ba proposer chef de l'opposition bi deux milliards. lii naxe bi doyut ba tey président. waaw mais attends est-ce que man dama dama jàpp là nak yow yaa bëgg def la charrue avant les bœufs man dama euh, le statut du chef de l'opposition ñun ñoo dem référendum peuple sénégalais souverain ñu def référendum ñu voté ko kon donc jappal ni loi constitutionnelle parce que référendum la loi constitutionnelle les lepp lu ñu voté ci référendum rek dañ koy transformer loi constitutionnelle ñu né dañu war am chef de l'opposition lan mo indi statut chef de l'opposition parce que chef de l'opposition dafa bax ci réew. parce que dafa bax borom réew mi luñ la fal fal fal fal bo togué ba nga xamé ni yaa jël yenn décision yu magi nga woko consulter ko ngén di tok ngén am calendrier sax bo xamé da mais fait l'unanimité. dafal nank rek non unanimité amul fenn aduna dafa am unanimité mas nga gis aduna fu am unanimité. opposition bi mom ni ma déggee ñuy agité affaire bi amul unanimité ko waxtanal fofu suba kenen ki bañ. waaw fo mës gis unanimité. amul xam nga lu ñu am consensus d'accord naa ci mais unanimité amul consensus nag mooy am na lu ma nangu naa ko nangu am na sax lu ma ci naqari waaye nag comme ñëpp ne nañu nii la naa ci ànd dama jàpp ni nag dialogue politique bi ak ñi nga xamee ñoo ko séq ak maturité politique bi ñu am japp naa ni dinañu dem ba waxtaan bu juboo ci dara man loolu laa jàpp man ay meru ñi ñu tànn opposition bi non idi déedéet du affaire tour idi sonko waaw waaw fu mu nekk ni débat bi loolu la foofu lañ ko tourné idi sonko oui euh, kii naan man kii duma jiite kii moo may jiite waa pds tamit fële sonko taxaw ne man kenn du sama chef non non non xajaloo bi ñëw na déjà divisé pour mieux régner xam nga xam nga àdduna hmm. euh, nit dafay nangu d'abord dara. Mhm. mooy cër yi yàllaa koy joxe. cër boo gis ci adduna yàllaa koy joxe. cër itam buñ koy joxe nit li mu mën mooy fixe ay critères man dama bëgg bu ñuy waxtaan ci statut de l'opposition ñu bañ a tudd tur. parce que bu ñu tuddee tur rek dañu indi jiyaloo dañu d'accord d'abord ci principe bi. Mhm. ni loi constitutionnelle. am na ñu wax ne comme régime présidentiel lañu nekk président. régime bi ñu am Sénégal du régime parlementaire régime présidentiel qui ki jël deuxième ci élection présidentielle mo wara nek chef de l'opposition am ñu wax né ki jël ki ëpp ay député ci hmm. assemblée nationale mais xam ngeen député assemblée nationale mom parti giñ na fa dem hmm. coalition de partis rek a fay dem ay coalition rek a fay dem <laughs> parti rek la fi gis mu nek assemblée nationale nekul coalition moy pur ñom dal dem nañu nekk pur am ñetti député. kon nañ leen ko jox ñu waxante dëgg rek. Hmm. non non loolu man dama lay tegal hypothèse yi dama tegal hypothèse yi. d'accord léegi bu ñu demee ci. Hmm. ba bu ñu juboo ci ni. Hmm. nañu ci régime présidentiel kii wala boog kii ëpp député bu boobaa ñu xam mais dama bëggoon bu ñu waxtaanee a dugal ay tur te waxtaan ci principe bi. gis nga bu ñu ko defee rek. li ci des na yomb. bu boobaa doo dugal ma Samba ak ma Demba ñu naan dañuy xiiroo dañuy ŋaayoo parce que politique itam nag mom mo xëccu ak ngaayo ak mais en réalité le rek buñu ko faire? amna kilifa bu baax dafa am lu mu doon wax dafa doon wax buntu yiw buntu yiw mu lu mu mais mu buntu xëccu lu mu yaatu yaatu bu ko ñaar confrontation de l'âme. d'accord Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ma ko statut de l'opposition bi ñu euh, euh, loi constitutionnelle limitation de mandat tamit loi constitutionnelle donc noo japp nga ne ciow li ñuy ruu mandat jëmale ko ci kaw. loi constitutionnelle c'est-à-dire que man lima gëm. Mhm. te wax nako que euh, Sénégal dafa am ay institutions yo xamé ni ku ci nek man dama la respecter. moy mhm. institution présidence de la République bi taxawal gouvernement. Mhm. institution parlementaire institution judiciaire yeen sax a un journal de dama ne quatrième pouvoir la presse mm. la presse mm-hmm. ku ci nek man musuma mosoo gis may xuloo wala may waxante presse damay suis day def mm-hmm. ci gëm je dama gëm ni mm. institution bu nek bu wax ci dara ca jamono bam ca wax dina ci wax d'accord ma gëm itam nii mm. Sénégal war nañu dépasser loolu xam nga lu tax ñu war ko dépasser. Mm-hmm. ñun daf daf ñu daloon. xam nga président lay Wade dafa nekk candidat 2012. Mm-hmm. ñëpp ni warul nekk candidat. loolu moo amoon. Mm-hmm. ba mu nii dañuy xeex mënul nekk candidat candidat bi du am conseil constitutionnel nii. Ablaye Wade candidat la. mu dem élection ñu gagné ko. waaw ku ko gagné du Macky Sall. loolu moo tax man dama gëm électeurs yi. dama dama ni ma gëmee. Mhm. institution yi. Mhm. noonu laa gëmee ni électeurs yi mën nañu tànn. moo tax gis nga naan ay pexe dama bëgg nekk candidat du ma nekk candidat. Mhm. mais bàyyi leen électeurs yi rek bañ a yegg ci. ñoom ñu tànn ñu tànn mais mais nag war nañ tànn ñi ñuy tànn tamit parce que nag mënoo def ñaari mandat nga war a jeexal dem euh, ñu ñu yokkal la euh, nga nga nga ñëw naan wéy il faut que mu amaat beneen troisième mandat loolu moom président foog ñu xoolaat ko bu baax quand président ab Ablaye Wade dafa def ñaari mandat 2000 amaat mandat 2007 ñëpp ni warul am mandat 2012 man moo tax man la Sénégal passé nañ foofu. dépassé nañ foofu fu ñuy waxtaanee. parce que parce amoon na dafa dañ ñun dañ ko dund. kon loolu ça doit servir de leçon à Macky Sall. waaw déglu rek. conseil constitutionnel ni way candidat la. li conseil constitutionnel man wax man d' accord naa ci parce que président Macky Sall ci jamono boobu dafa ne. lu conseil constitutionnel wax rek d' accord naa ci mais mu dem mu dem mu dem. président moo yoroon nguur gi. yor ay ministre am yore ay avion yore lépp mu dem ñu gagné ko amul sax 30 pour cent. mais bii nii tamit cas de force majeure la ñu wax ne Macky boo jeexalee ngir yàlla demal. waaw nga bàyyi ñi fi des. Hmm. ñu jonkante waaw man xam nga yow daal dafa mel ni nag xanaa eh, Daouda xanaa doo dégg. man dama ni la Sénégal dépassé nañu loolu loolu beneen réew moo ko war a wax. jàppoo ne Macky maa ngi koy xalaat si boppam non mën nañ ko dépassé mais nit ki si boppam moo ko du dépassé président. mais man nu may nu may xalaatee mënuma xam. nga gis koo xam ne moo ngi nii di exercer mais moom xelam moo ngi ci troisième mandat. président Macky nu ma ko mën a xalaatal lu dul man li mu ma wax ma dégg ko xam nga man li ma wax li ma xam. Hmm. mooy président Macky mi ngi ci deuxième mandat. deuxième mandat mu nekk ci bopp réew mi. Hmm. moom jiite ko. yàlla def na itam am na plan boo xam ne daf ko tëral nii fii laa bëgg a yeggee Sénégal xam nga lan mooy sama xalaat. Mm. saa bu ma xëyee lan mooy sama euh, action saa bu ma xëyee mooy li may def mooy fexe ba bëgg bëgg boobu comme man dama ci ànd ak moom. Mm. ma fexe naka laa ko ciy jàppale bu dëgg bu dëgg bëgg-bëggam boobu mën a nekk réalité man loolu rek mooy sama mooy sama mission tey. président moom lay def ci biir moom lay def ci biti. d'accord président émission bi jeex na vraiment temps bi xat na loola. Ah. Ah, waroon nañu waxtaanee question yu bëri wàllum justice bi yëpp mais temps bi xoj nañu. sant naa la bu baax parce que may nga ma. mu mën a leeral lu bëri loo xam ne man man tam dese naa lu bëri. waaye nag comme yoon demul ci yamul ci benn. Mhm. parce que olof yi ne nañu bu yoon jeexul waxusil du jeex. maa ngi lay xaar beneen doon. internet nous ñun tamit ñu xaar leen benen yoon semaine di ak émission Actu Débat jëf